bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah alladi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah wassalatu wassalaamu ala ashrafi alxalq سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين Monsieur le Président de la République yow mi nga xam ni yow la yàlla woolu ba dénk la njabootu Sénégal yépp ngi lay delloo nuyoo ci turu xalif général de Tidiane Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy démb la ma wax ni ngeen ko teeru te na ko teral ndax teral na ki ñu amul lu dul moom gannaaw yàlla muy Cheikh El Hadji Malick ngeen ko teeru na ngeen ko teral na ngeen dalal xelam nu ko fii dara xewu fi lu dul ànd ak moom jàppale ko ci mission bi nga xam ni moom la ko yàlla yen li ma nanga koo ko waxee noonu nga ni ko sama ñàkk teew du dara problème mu santé rek la te maa ngi ci yëg tànn parce que naa yéene sax bu paasee danaa soox ànd ak yow ak sëriñ bay Sy Mansour ñu dem seeti ko moom président su ñu fa jógee nag ku ma cay teg ma door ko cay teg nee ko itam ku fa ñëw indi suñu tur ak ku mu mën a doon walla képp ku dem ci rajo yi noonu la ma ko waxe wax ci suñu tur yónniwunu ko yow la yónni lu may wax yow laa koy wax keneen ku mu mën doon nag bu ñëwee waxi boppam lay wax waaye du sama wax man lu may wax yow laa koy wax mu tëkkee nii ba bërki démb rekk maa ngi yónni yow ak Ali Sow ndax la ma ko doon wax yéen ñaar rek la war a intéressé moo wax kooku nga nuyul ñu ko bu baax te ni ko nu ngi suivre programme ci wàllu réew mi ñu ngi suivre dialogue ak cohabitation pacifique bi nga xam ni sóobu na ko pour tabax Sénégal beneen tabax bu bees ndax Sénégal mooy sunu bato ni ko itam ñu ngi koy topp ci ni mu bëgg a réaliser sécurité ci réew mi saxal ko ci dëkk yépp ni ko man ci encouragé ndax ku amul ak dal doo tabax sa réew kon ni ko problème sécurité bi mu sóobu itam bu am solo la na ko ci ñépp jàppale te moom itam mu taxaw ci renforcer ko ndax réew mi mën a am ak kóolute ci boppam am ko ci ñi wër Sénégal ci yeneeni état ñu dindi fi anarchie fexe ba yi xew ci réew yi ci des ban fi xew te moo di li mu gis muy daw ci réew yi ci des ci reyanteeg jàppanteeg sàcc te loolu mosul nekk jikko lislaam ñu bëgg a jël yooyu yëpp nag léegi yan ko lislaam ni ko lu mu ci mëna dindi na ko dindi pour ñu am islaam bu sell lislaam bu rafet lislaam bu méngoo yoon wi yonent bi tëral sallallahu alayhi wa sallam mu ni itam ne maa ngi suivre politique bi mu sóobu ci ndaw yi maa ngi koy approuvé bu baax a baax dolli leen a dalal seen xel rek ba li ëpp ci taxawaay mu féetale ko ndaw yi ndax ñu mën a am ay liggéey ndax yu mën a tal seen bopp ndax ku am liggéey sa yoon dootul nekk ci yàq réew liggéey ba ngay tal te gis nañu yoon wim ci sóobu ni mu amee solo muy ñaan ndaw yi bu ñu ko yàkkamti bu ñu ko yàkkamti ndax loo gis ndànk-ndànk rekk yàlla mënoon na mu ni ma yàlla mënoon na bu nit juddoo tey màgg tey dox tey waaye defu ko dafay juddu ba ñu di ko yëkkati di tëral bee ba muy mën a toog ba muy mën a raam ba mën a jàppandi ci miir yi ba muy mën a siq ay tànk di fi jéego yaayam di ko tàcc di ree ak papam mu di ko topp étape par étape ba mu mën a nekk doomu aadama bi nga xam ni dana dox ci réewam jëriñ réewam defar réewam mu ni mi ngi ñaan ndaw ñi ñu bañ yàkkamti ndox yàlla yàkkamtiwul mbiram te yàlla rek moo mënoon li mu sumb yépp mu def sottal ko ci benn jamono waaye gis nga ni mu doxalee mu ni yoon woowu ci président tëral nag gis na ko rafetlu woon na ko waaye itam mi ngi ñaan ñi mu ko séqal muy ndaw yi ñu bañ a yàkkamti te dox ndànk rekk ku dox ndànk bu yàggee da àgg fa nga jëm mu ni lool it mi ngi koy ñaan ndaw yi ñu teey ba ñu yàkkamti seen programme ndax yàlla bokkul ci mbiram yàkkamti mu ni mu teg ci mu ni doomu aadama mbiram mooy gaawtu mu ni aadama alayhi salaam bi ko yàlla di sa ruux lu ruux gi romb rekk mu nekk yàpp nekk deret nekk sidit nekk yax ba mu yegsee ci li rekk mu daldi mu ni bëreet bëgg a taxaw te loola amagul ni moroomi cër yi am suñu boroom ni xuliqal insaanu min ajal mu ni ndaw yi bu ñu jëlee doomu gerte tob bi sànni ca doomu gerte ba dañ koy jongoru naan ko saxal mbaa mu sili la saxal mbaa mu sili la mu ni bu toogee ba tàkkusaan seen yàkkamti daan tax mu ni ah kii daal daf may tardeel daldi di suli gerte ba sànni ko mu ni pourtant bu ko bàyyi woon trois jours rek mu jox ko résultat moom doomu gerte bi dana daal di sax génn ay xob bu yàggee tuuti rekk mu génneel ko saxinu gerte bu rafet mu ne kon nag mu ngi ñaan ndaw ñi ñu dimbalee la sa programme bañ a yàkkamte yow itam fi nga teg sa tànk nga bañ ko teggi bu yàggee rek dana am lu mu jur mu ni mi ngi rafetlu itam diggante ak ñi nga xam ni ñoo amee mbay mi gis ne liñ ci tëral rafetlu na ko ñoom itam ñu xale yi ñoo bokk li muy waxe ñu ngi bañ a yàkkamti rek te kuñ ci jox ndimbalal gerte itam nga góorgóorlu ba defar ko na mu waree pour résultat bi mën a dellu si sa taxawaay yow mu ni mi ngi lay suivre ci sa paa yi yëpp jéego yi ngay def pour réew mi jëm kanam mu ne rawatina nag li nga def ci kër këru diine yëpp fenn fu ne nga am loo fa tàmbali te mi ngi commencé di mat mu ni déglu na sax ci internet moom moo ko wax de waa ñaseen di wax naan ñaseen gi ci Kaolack leew na ah suñu programme bi day lee mu mat jàkk ji dans deux mois danañ ko julli mënu lool yépp yëpp c'est la ci këru diine yi te Sénégal yàlla moo ko def dëkku diine ku bëgg sa politique dox fi il faut nga bàyyi doomu diine yi xel doomu diine itam bañ a yàkkamti seeni jéego bay bañ a nangu kenn di leen jël utilise leen contre seen réew mu ñu boobu du baax du dox nañu def ndànk-ndànk rek bu yàggee li war a am yëpp dana am loolu daal la ma yónni woon ci yow ni nag mu ngi approuvé sa taxawaay ci anam yëpp nag mu ni mu répété ti yónniwul kenn ku ñëw ci yow wax walla ku dem ci rajo bi wax lu la neex yaa ko wax waaye moom waxulu ko ndax kenn gisu ko gisul kenn mu ni ba mu nekkee li mu nekk ak léegi waxu fekk kenn ku dul man keneen ku ñëw ak déclaration boo mën def yaa ko defal sa bopp waaye moom du moo ko sant du it danga ci diisoog moom ba mu war da caa jox ndigal ne su amee kenn ku muy jox ndigal man lay doon mu wax ma li mu xalaat loolu nag ñun ñëpp gis nañ ko xam nañ lu waay waxit yaa ko waxal sa bopp waaye moom du weddi boppam ñu di la nuyu ci bés bu réy bi di bésu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydil Hadji Malick sosal kooku fii ci Tiwaawoon di wax ni ah, man de bu ma sañoon su may gàmm ñëpp teewe ko moom Seydil Hadji Malick mu ni ndax mag mu amul lu dul génn dëgg di ko wax ci génn guddi cim at bu sañoon ku mu jaboote daa ko fekke bu sañoon ku mu wëllëranteel daa ko fekke moo tax mu santunu ñu yónnee ay invitation ci këru diine yëpp woo leen ci bisam bu réy bi wax leen li nga xam ni mooy xalaatam ci problème tabax gi ngay tabaxaat këru diine yi kontaan na ci te mu ngi la ciy ñaanal yàlla sant itam sa soxna nga xam ne mooy yaayu Sénégal yëpp te mat na ko nag ndax nee góor gu mag goo gis mu taxaw am na jigéen ju mag ju taxaw ci gannaawam di ko jàppale te loolu gis nañ ko ci sa soxna du noppalu guddi du noppalu bëccëg ngir jàppale la yëg leen nit ñi ni jigéen warul dugg ci politiku Sénégal waaye man contre contre naa loolu jigéen ju mu war a doon war naa mën a jàppale sëriñam ci mission la ko dale ci sayidatuna Xadija ak yonent bi sallallahu alayhi wa ak sayidatuna Aysa kenn ku nekk danga nga takkoon seen digg ànd ak yonent bi ba bi ñuy laaj xadiis li nit ñi dégg ci yonent bi te mu war a mën a nekk njariñ moo mu joxe ñaari junni xadis yu mu dégg ci yonent bi ñu mën koo jariñoo ci suñu biir tëralin bi ñuy tëral yoonu lislaam kon jigéen du dugg ci politigu jëkkëram kooku wax mu yàqu la bu ci duggul ku ciy dugg ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu tax ñu may ko moom mu takk lu ëpp ñeenti gor parce que dañu bëggoon soxna yi mu am nekk ay professeur dugg ci biir mbooloom lislaam li ñu jële ci yonent bi ñu mën koo tas tas bu gaaw ñu ni pour nag loolu dax nañu ko may moom mu am lu ëpp ñeenti soxna ndax weesaare lislaam bi gën a gaaw kon fa tabaarakallahu jigéen du dugg ci politique jëkkëram kooku wax bu yàqu la li am solo rekk na ci duggee dugg defar dugg dabaatal lu ñu war a dabaatal te moom moomu loolu lay def dana bàyyi ba guddi sax mu rocc ko bàyyi sëriñam muy nelaw mu dem defari benn problème bu yàqu boo xam ne bu ko defarul woon rek musibaam loolu nag kon ñu ngi ko ciy félicité ci taxawaay bi muy taxawu ci wetu sëriñam di ko jàppale ci mission bi nga xam ni moom la ko yàlla yenn ñu ngi sant bu baax ak di ko dëgëral sa premier ministre bi nga xam ni moom itam mi ngi ànd ak yow ci jàppale la ci lépp looy taxaw ñu sant ko ci loolu sant sa collaborateur yëpp ñooñu ñëpp seen taxawaay rafet na ci biir gouvernement bi muy góor ñi muy jigéen ñi ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na yàlla mottali seen programme yàlla bu ko dara yàq ba fi ngeen jëmee réew ñu ngi lay jotal nuyoo sëriñ bi ak i ndokkeelam ak di leen masawu ci coono yi ak di leen ñeebante ci liggéey bi nga xam ni soobu ngeen ko te Sénégal yi naqaree déggal aw yoon bu ñu ni woon tekk tuuti rek may la nga yu continuer sa programme réew mi dana dal te dana ci ami yiw waaye nag doomu aadama moo gaaw woon tu dafa bëgg lu mu bëgg rek mu sotti tey te nag yàlla defalu ko kenn su ko defee nag kon ñu ngi lay masawu di la bala ak di kontaan ci ñëw bi nga ñëw fii ci Tiwaawan ci bés bu màgg bii di bésu yonent bi Seydil Hadji Malick sosaloon ko ko pour def gàmmu mu nekk enseignement ci Sénégalais yëpp mu bëggoon ni bëgg na ñépp di ko fekke la mu amoon yàlla defal na ko kooku amul kenn ku aju ci Seydi El Hadji te tey jii teewuloo Sénégal ngir bëgg rekk réew mi jëm kanam njàngale mi mu fi bàyyi woon it jële ko ci mag ñi jële ci yonent bi sax fi ndax boobu njàngale rekk lañu mën a tiitaroo moom lañu mën a takki suñu diggante ba mu dëgër am kook tariqa yi ci des am kook këri diine yi nga xam ne ñoog ñoom a bokk tijaan pour ñu dëgëralante ku nekk dëgëral sa moroom li nu yàlla yéene ci ak defaru ak ak defaroo ñu mën ko réaliser suñu diggante loolu yëpp yaa ngi ciy jàpp di ñu ci jàppale di ñu ci encouragé ci temps bu ñu waxtaanee ak yow ci wéet daanu wax lu dal suñu xel lu tax ñu mën laa mën a jàppale daa iman nag te ku añaanul ni yàlla ak diw loolu du fi jóge yàlla ak diw yàlla ak Macky Sall fi taxawal bâtiment bi mu ni loolu nag du fi jóg sant nag ñu nga ko dénk laa bëri ak man di ñëw di ma rendre compte ka ca jiitu moo di architecte di palais di madame Diouf jàmbar la lool dana ñëw suba teel dana ñëw diggu bëccëg dana ñëw ngoon pour surveiller ñiy liggéey léeg-léeg mu am jotu romb fii defal ma compte rendu léeg-léeg du am jotam mu yónnee man ni ko ñëwoon na nangam laa doon dox si mi ngi dox bum na fàtte ci ñaan di gërëm ki nga xam ni moom la ñu dénkoon liggéey bi mu di maam Mor Fall général d'entreprise góor la lool taxawaayam rafet na sant ki nga xam ni moom la ñu moom tànn ko ci xadara bi pour mu di leen surveiller ak di leen dolli xalaat mu di Abdoulaye Rokhaya Wane loolu yëpp nag ci sa mbaax ak sa tolérance lañu ko mën a ame ba liggéey bi gaawe nii rafeti nii tabaarkallahu jekke nii taalib yëpp am fu ñu toog déglu nu nun tam nu am fu nu toog wax leen li nu xam loolu ci sa taxawaay lañu ko amee wax dëgg yàlla dañ koy reconnaître bu baax a baax a baax njaboot Seydi Hadji Malick yëpp bokk nañu ànd dakoor ci li nga réaliser fii boo ko ànd ci sant la ci boo ko ànd ci jumaa ji nga xam ne am nga yéene euh, defaraat ko wala boog mottali ko ba ni ñu ko bëggee woon mu am loolu yëpp ñu ngi la ciy sant ñu ngi la ciy ñaanal yàlla programme yi ngi ciy tëral yëpp yal ko yàlla nangu ñu ngi leen di masawu ñu ngi gërëm sa ministre de l'intérieur nga xam ni ku teey la waaye itam ku am taxawaay la ci li nga ko sant te njaboot balaa baax yéene kilifaam jàmm ba lu mu ko sant pour mu def ko rekk danañ ci def itte ba loola taxaw ñoom ñi nga xam nag toujours ma giseek ñoom li ma xam ci ñoom rek laa lay wax du luñ ma sant waaye loolu laa gis su ko defee nag kon ñu ngi lay masawuwaat di la wax ni waxtu wi mi ngi jot waaye di leen won ni fii ci ngir mi ñu sukkandiku muy ngiru Ilimaan Maalik julli jumaa dem na ba jant so bu jumaa ji desoon ñaari waxtu rek sañ nga koo def jant so sañ nga koo def te waxtu wi dafay door a jot rek ñu nuyu ñëpp ziyaar ñëpp doomu soxna yi fi teew këru diine yi fi teew bu ñu fi toogee di lim ñëpp dafay xàttal liggéey bi waaye ñu ngi sant ñëpp ci seen teewaay doomu soxna yi aju ci kër Seydil Hadji ak yi ci ajuwul yëpp te teew ñu ngi leen di sant ci turu xalif général di Tijaan di leen jaajëfal ci seen teewaay ci suñu bés bii di leen félicité itam ci dérangement yi ñu dérangé ñëw bokk ñun bés bi muy bésu Seydi El Hadj radiallahu anhu ah, ñu ngi leen di ñaan itam bu ñu jógee rek ngeen ànd ak teey bañ di jiitu kilifa yi ci bunt yi di ko xëccoog ñoom di ko xat